jërëjëf alxaaji Malick gis nga waxal nit lu ñaaw ak seedeel nit lu ñaaw bakkaaram moo gën a rëy bakkaaru nit koo xamee ne dafa sëy ak waajuram fanweeri yoon léegi xoolal fi àddina bi toll ak suñuy groupe bi whatsapp tout le temps ñu ngi jéem a tasaare lu ñaaw tout le temps ñu ngi jéem di jëf lu ñaaw te gis nga doomi aadama bi bu jëfee lu ñaaw walla mu seede lu ñaaw wala mu tasaare lu ñaaw suñ borom subhanahu wa taala dafay tomb benn tomb bu ñuul eh, ci xolam bi gis nag boo yàggee ci loolu di ko def day mujj xolam bi yépp dafay daal di ñuul ba daal di xomaat ñooñu la buur di wax ci alquran naan kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun loolu suratu mutaffifin la mooy aaye numéro 14 yàlla nee na ku yàgg ci wax lu ñaaw ak seede lu ñaaw day mujj xolam bi dafay daal di xomaat xoolal léegi doomi aadama yi mënatoo xàmmee ku la bëgg ak ku la bañ ndax toogaanu bi dafa bëri dañ lay wan amour fekk xeen la di la toogaanu di lekkee sa kër di fa naanee def la yaay wala def la doom wala def la xarit def la àndandoo wala def la papa def la nijaay te fekk lu ñaaw rek la ñuy bëgg di séentu ci yow ñii nu mën di ko euh, tasaare moo tax gis nga am na ñoo xamee ne yonent bi sallallahu alayhi moo leen déclaré guerre yàlla déclaré leen guerre ñooñu ñooy naafeq yi ndax kenn xamul fu ñu bokk moo tax yàlla wax ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal déclarel ne gaa ñooñu di seede lu ñaaw di wax lu ñaaw déclaré naa ne yowmal qiyaam bu ñëwee mbugal mu métti la ñuy am bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima gisa bu fekkoon yàlla dafa def écran géant kenn ku nekk mu lay won say noon maa ngi giñ ci yàlla billahi lazi laa ilaha illa huwa dina am écran yoo xamee ne wala dina am passage yoo xam ne bu jàllee danga naan déedéet yàlla kii bokk ci kii ñoo doom añ démb déedéet yàlla kii bokk ci kii kat démb ñun ñoo bokk euh, def nangam ak nangam ak nangam mu may wax li ak la fekk kooku moom mooy sa noon bi gën a am mag kon nag dëkkool xasbunallahu wa niamal wakiilu mën a dëkkeel xasbunallahu wa niamal wakiilu soo mënee dee ko def juróom fukki yoon par bis noonu yi nëbbut yëpp dinañ mu jëfeeñ salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.